jaal buubak jaal cham jaal ba chaire re jaal ma neex waaw sama waaji tubaarikàlla macha allah lal bu jek bu rafet bu tubabe <laughs> duma ko lal sama xarit bi nak ya meuna tan nak nag ya meun mère de la génération allah bal takul fetul du jog nga meun jënd lal meuble buñ ko waxé rek ngeen dem jënd kamoon yu ndaw ak ki yu ndaw nuñ koy waxatee coiffeuse yu ndaw sama waji building ngay jënd ya man nak rido yi dema ma ak ki décorer salle de bain bi sama waji ya man oh my god dama am envie teud sama lal bi ni oh sama xarit bi meun nga lal bi e beuri ci mbir ci mbir xolal ma li sama photo yi xolal ma li bu sama Gani bu nu ñëwee rek ma nokulé na taxaw ñu taxaw oh my god Douglas So soo rek man nga sama wajib man nga mën nga yee des ma nokk ko dama doon vidéo mu dagg tubaarikàlla macha allah damaa kontaan xam nga lu tax kontaan donc bu ñu daan wax saal bu rafet rek dañ daan wax naan oh, il faut nga importer lu tax nga jënd waroo jënd lii dangaa war a dem importer dama ne leen toog leen léegi importer jeex na sunu réew mi gis ngeen kii nii ki ko defar ci réew mi la nekk jëkkëru ndayaa botte la nee naa la dalay defaral sa saal ba mu rafet xoolal la sa photo bi gën a jekk mu defaral la ko ci sa saal ma chérie dama leen di wan miir bi miir bi judduwaalewul nii de bu leen foog ne importé la du importé moom moo ko defar nii travail ko def ci table bu blanc bi ba pare daal di ci defaat li nga xam ne moom la ñuy monter télé bi bi nga xam ne télé bi bu ñëwee da ko ci monter nii te du wax du am bal du tàkk fetal du jóg sama waa ji yaa mën nag nee naa la mën maîtriser mokkal continuer tubaarikàlla nee naa la yaa mën te li ngay def da nga ci ànd xol bu laab tubaarikàlla macha allah da ngay woo nit ki nit ki woo la téléphone nee la damaa bëgg lii nga calculer defal ko devis ne ko carrément defaral ma kaay ma defaral la ba mu baax ba nga xool bu sa xol seddul bul fay. sama waa ji mën nga moqal nga maîtriser nga tubaarikàlla ay wax amatul Kara Séeri Ndaya moo ma defaral lii maa ngi leen di dugalal numéro léegi léegi léegi tubaarikàlla parce que nag sama xol dafa sedd. ba pare li gën a garaaw ci kaa bi mu ñëw kër gi karo yi neexu ko mu ne ma non karo yi neexu ma ma ne ko waa léegi bu la karo yi neexul looy def kara mu ne ma karo yi neexu ma damay changé dovi karo bi ma ne ko ah mu ne ma waaw mu def ci lii tubaarikàlla macha allah yaa mën yaa maîtriser yaa mokkal tubaarikàlla euh, ndayaa bote nag moom moo ma jaay li nga xam ni mooy sàmbur bi dégg mën naa leen sàmbur photo yi sàmbur photo yi photo yi à bi ndayaa bote moo ma ko jaay ndaya moo ma ko jaay mi ngi ni tubarakallah momit it euh, limi jaay rafet na torop torop ndaya limi jaay rafet na momako jaay mi ngi ni gis ngeen ah donc gis nga photo bi gis nga moquette bi moquette bi tamit da ngay def ni sa tank mu neex bay bëgg waktu noy tutak machallah wax du am bal du tak fetal du jokk mané len xalé yi dal tubarakallah rew mi fi mu toll nii wuté tul dara kenn joyotul ken defatul dara da ngay tok fi nga tok say doomu rew dila ligéyal cum hey mana na ba pare juga li ci gëna a dalay bapak montel ba pare monter le clim moma monter clim bi de hey mané ko l'homme 12 métiers dëgg la rido yi ñoogu cheikh koko ko luy lool moo jekk kay kala mo jek jekk <laughs> alaykum sama seetu bu bes bang ni fi ma tuxu bes seetu bi ma am bu ini baangi ni sama wa xarit yi sama neeg bu ini, baangi ni salam alaykum ku ko géggul na jox moromam sama keur gu bes ki setu bi dafa leer ba pare dafa rafet xoolal di ma barikalla ma salla liwli liwli ngelawli la te liy naaw a neex tubarikalla ma salla tutu asu sama waji tubarikalla yaay serigne fallu mbacke munon nga ma tek beut sama waji ji may ma une minute ma wax ci yow lu bax munon nga ma tek beut tutu asu tubarikalla way defoko mam jay Njaay savon l'international tutu asu américaine soog nga ñëw sàjjal ma photo bu toll ni màggal Touba xam nga ni sëñ Fall rek laa bëgg mën sëñ Fall rek laa doyloo Fall aw bu sa jëx réew ma càmmiñal ma rem bàyyi Serigne Abdou Karim barke Serigne Fallou Mbacke lu may may yàlla nañ ko séddoo tutu astu nga baax bari valeur am personnalité américaine soog yaa riis yaa am personnalité yaa gën maalaw ci réew mi xam nga ban ngay dégg tutu astu xam nga maalaw ci réew mi ban ngay dégg maa la mag ak maa la sut waaye doo dégg maa la gën américaine sot sa palace boobu yàlla na doon ay américaine sot yu baree baree baree bari yaay Serigne Fallou kontaan naa je t'aime fort I love you lu ma Serigne Fallou di mbay rek yàlla nañ ko séddoo ma ak yow